Mouhamed Gueye Saloum maa ngi dëkk ba Saloum dëkk bu ñuy wax dama màggal si waaw maa ngi jóge dëkk bu ñuy wax sëñ ci maamu Ndumbe déedéet man Tijaan laa wax dëgg yàlla waaye nag dama jàpp ci li alxuraan naa waxta si ma bi Abdoulaye jamihan wala tafaraqoo sunu borom ne mooy leen si buum yàlla gi bu leen teqalikoo loolu moo tax a ñëw Touba bëgg sëñ Muntaxa loolu nag bëgg ko lool ngir jëm yàlla dama ko bëgg ngir jëm yàlla sëñ Muntaxa dama ko bëgg bëgg ba nga xam ne bu gisee si station Maam loolu yàlla ko def déedéet bi mooy lu mat daanaka man a fukki lu ma dara ñëw Tuubaa léegi léegi mat fukki at jàpp ma at bi nag waaye léegi mat fukki at waaye musuma tardé màggal na ko dëgg yàlla te ñaan ma yàlla mukk it feeg maa ngi nooy rek naa ñëw si kàttanu yàlla lu bis bi laaj jaral na ma ko it nag jëm sëñ Tuubaa waaw mooy ni ko sama mbokk mi waxee rek ndax yonent bi salaa salaam dañoo waxoon ku bëgg mucc tàll si sama yoon yi yoonu yonent bi mooy na siraatal mustaqim sëriñ Tuubaa bi mu si yoon woo la jaar alaaji Maalik si la jaar Cheikh Abdoulaye si la jaar Maam Limaamu Laay si la jaar kon ñu ñëpp benn lañ kon nit ki foo dégg lu baax la la war mooy nga jóg njëkkante def li alxuraan ne fafiru ilallaahi njëkkante leen lu baax njëkkante lu baax nag mooy lii bul wax ne bokkuma ci ndax lu baax ñëpp ko bokk sëñ Tuubaa mu ne sant leen ma yàlla la wax kon uskuroo ni'matallaahi googu na ci alxuraan la alxuraan na ko wax yàlla sëñ Tuubaa sant la ma yàlla gàttal ak yàlla mooy lan mooy nga bàyyi sa yitte àdduna xam ne temps bi cher na ba ma jógee sori na waaye Sëriñ Tuubaa jaral na ma ñu ñii jaral nañ ma man maa ngi lay seedeel ne man ku bëgg lu baax la waaye ku bëgg ñu baax ñi laa it nag ndax dama jàpp na lu baax li man maa ko moom man loolu laa gëm lenn rek benn point de la moom moo métti si màggal bi mooy liggéey bi ñu war a liggéey Sëriñ Tuubaa te liggéey bi muy si wàllu paas yi maa ngi koy wax jawriñ ji léegi ndax Sëriñ Tuubaa bu ñu koy liggéeyal dañoo war a wàññi paas yi ngir jëmmi Sëriñ waaye ne man gëm na sëñ Touba te doo liggéey sëñ Touba si si bisam bi man jàpp na loolu loolu tegg ni wut ndax lu toll ni Touba nga fay dem nga ne yow sëñ Touba nga yaakaar tey ak ëllëg di fa di jaam yàlla yi man dëgg dëgg sëñ bi loolu rafetlu ma muy cause boo xam ne métti na woon na ma loolu nag mosuma yaakaar naa gis sax fu ma ko jooyee waaye ndox ma yàlla may fu ma ko jooyee may bàyyi xel mbokki taalibe yi ñëpp nañuy jox sëñ Touba cëram ndax yàllaa ko jox cër nit bu ko yàlla joxee cër da koy jox cëram yàlla tax nañ koy nañuy xayafal paas yi ndax nit ki loo ko liggéeyal pour yaakaar ko ëllëg du tey fay gi ëllëg la Sëñ Tuubaa yàlla fay na ko démb fay ko tey fay ko suba dana ko fay suba su baax a baax a baax bu baax man mii sax yàlla mayoon billaahi wallaahi talaay bu yàlla mayoon doole ma jaayante ko ngir Sëñ Tuubaa man li may doon doon tiijaan ma jaayante ko ngir jëmmi yàlla ak Sëñ Tuubaa ndax jaral na ma ko ndax ma jógee sori na ruqi na waaye nag jaral na ma ko kon sëñ Tuubaa liggéey na lépp loolu ndax lislaam ba def lislaam ak liimaan ak ihsaan da dul benn imaan mooy nga gëm ne kii ku baax la li mu am lu baax war naa ci mën a am loolu mooy imaan ihsaan nag si làmmiñ lay am da nga jëf bu gaa yi jëf waaye du dëgg si soxal loolu nag yàlla ñu si àlla musal waaye sëñ Tuubaa daal ñu ngi ñaan ci barke bis bi yàlla ñu ko yàlla fayal rëccu ñu fi doon ñëwee ñëw gi ñu fiy ñëw dañ fi dalee ñëw ba ñu ngi yokkute te yaakaar naa incha si kanam la jëm yàlla yi yàlla ngeen sut ci yàlla na ngeen sut ci bis bi lépp li ngeen si liggéey yàlla na barke te dana barke sax nag ndax ku jëfal suñu Tuubaa suñu Tuubaa fay la Mouhamed Gueye sëñ ci Mamour Ndoumbe maa ngi dëkk sëgg naa këram jibel jëf man Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu Baay Ñas mooy sama wasila mooy sama wasila waajur waaye jëmm ji yàlla ñu boole ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñu bokk lépp moo tax bisam bu ñëwee damay bàyyi sama lépp ngir jëmmam jërëjëf kontaan nañu baax a baax a baax jërëjëf yàlla ngeen fi yàgg